comme ni ñu leen ko waxee rek euh, ci euh, tàmbali gi dañuy waxtaanee loo xam ne rek jamono ji moo lëmbee euh, réewum Sénégal muy ñoo xam ne dañuy woote ak yonent donte lu fi bees ndax gisoon nañ ñu ko fi doon woote waaye fan yi moom gën naa jàmbaajoo ci réewum Sénégal ndax dégg nañ ñoo xam ne ñi ngi ci Kolda di woote ak yonenti ba mu jur coow ci réewum Sénégal oustaz yow loolu bi nga ko déggee lan la la def en tant que koo xam ne day yëngu ci wàllu diine. jërëjëf Seydina Seynou waaw tiit rek xam ni itam dañoo nekk fi suñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxan ni bu ngeen fa àggee dana bari muy woote yi ak yonantu yeeg mahdi yi mu ne dana bari lool ñu bari dañu woote ñoo xam ne woote yi du leen dëgg ay kàcc rek lay doon bi ñu ko déggee rek loolu la daal di gis xam ni ay nar jógati na lu dëgg jógati na lu nit ñi war a gaaw jóg jógati na rawatina nag nit yi diine yi ak ñi xam ne ñoo yore réewum Sénégal muy kilifa aada yi ñu am ci naqar woo xam ni mënuñu ko wax ndax day naqar woo xam ni bu fekkee ñun ñëpp dañoo toog di seetaan rek Seydina Usmaan àddina tukki dañoo war di xeex ak ñoom man ra'a minkum munkaran la wax ku gis loo xam ni lu lu war a danoo sa la waaw man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi zaalika ad'aful iimaan bi moo gën a yées kon dañu ku gis ci yéen lu bon lu ŋàññ lu sib nanu gaaw dénoncé ko ci lu koy dénoncé mu ne xanaa ñu dindi ko loolu état ko war a def bi yedd loxo otaay rek ko moo ko mën a def wala xalifa yi diine yi nga xam ne tey bu ñu waxee tey ñu toppal leen ñun su fekkee loolu mënta am mu ni fa bi lisaan yi ngeen wax ko mooy lii ñu def man ak yow tey ñu wax ko suñu laa mañ danoo sa ko ñëpp xam ne lu bon jóg na lu ñaaw jóg na lu xisaw jóg na lu kenn wërta bàyyi muy dox jóg na su fekkee dem nañ ba loolu mënta am nag ñu ñaawlu ko suñu xol nag ñaawlu ci xol gi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu mooy li gën a yées mooy li gën a ngëm gi gën a lompoñ kon li ñu war a def kon ndekete ndekete war na noo jóg jéem a danoo sa lool ci suñuy loxo loolu état ko war a def su fekkee mënuñu loolu ñu jéem koo danoo saw ñaawlu ko ba ñëpp dégg ni ñaawlu nan li lu bon lu xew ko xew Kolda mm-hmm. su fekkee loolu mënta am nag ñu doog koo danoo sax ci suñuy xol la nga xam ne moom amuñu sañ-sañ kon waaw euh, mu mel ni mbir mi dafa rëy lool ndax lu toll ni yonente ku koy woote moom doy na waar lool ci réewum Sénégal fi mu toll nii ak yonente leen rek lañ war a def fi mu toll nii mooy ñu rey ko mm-hmm. benn solution bu dul dem rey ko yonente bi sallallahu alayhi alquran moo wax ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatima nabiyin loolu ma ci yitteel ci aay yi tey xaatima nabiyin Muhammad mii jurul bàyyi kenn ci yéen Zeydul ibn Xaaris lañ ci doon waxal waaye bu ma xee loolu ni walakin rasulallah mooy yonent bi nga xam ne moo mujj ci yonent yi xaatim mooy lan koo xam ne bi nga tëjee mooy buntu bi boo ko xasee kaske jël sa caabi dem kenn sañatu ko tijji mu ni tëj nañ ko moom yonent bi mooy ku tëj yonent yi ginnaaw moom keneen dutu am mais léegi nag pourquoi bari keneen jug ni yonent la ñëpp koo sala baro seen dox seen lu ñaawa ngo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan noonu nag ginnaaw moom amul kenn ku waratee ñëw ni yonent la bi mu fi jógee dafa am ku ne wax musaylimatul kazzab am narkat la kàcckat la bi mu jógee daal di man yonent laa ni fi Muhammad doon wootee noonu laay wootee Abubakar Sadiq daal di jóg fekk ko yamaama xeex ak moom rey ko ndax lan ni ko loolu du dëgg amut Muhammad mooy ki mujj ci yonent yi ginnaaw moom keneen dootu am awliya yooyu ay mujtahidun dee ñëw nangam ak naaw taabi wax taabin waaye nag ab yonent duutu am ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam duutu am ah ñoom fi ñu koy jaaree mooy xëy na euh, ruhullahi Isa nee nañ dem na waaye dina ñëwaat euh, est-ce que tamit Isa bu ñëwee day woote waat Seyd euh, Seydina Isa ñëw gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne moom la ñëw gisagun ko déedéet lii ay na rek la Seydina Sun Seydina Isa borom xam-xam yu bari bind nañ ci ni dina ñëwaat mais nag ñëwaat gi mu ñëwaat tolloogun ca mu ñëwaat ñu mën a xam ne lii ndax mandarga gi yonent bi sallallahu sama wa bu ñëwee dana am gisagun ko ndax doon na la ku nu wax Masiix jàll te Masiix Dajjaal gisagun ko ci ay bët lu mën a teg loxo ni lii la ci ni ko yonent bi wane woon borom xam ne wax ci wax yu bëree bëree bëree bëri kon kii ab seytaane rek la ku nar a jaxase la ku ñu war a rey la ndax Seydina Isa muy ruuxullaahi mahdi yu dañu wax ni borom xam-xam yi sax am nañu wax ni Omar ibn Abdul mahdi yu mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax du Omar ibn Abdul Aziz man gisaatuma mahdi yu beneen mahdi yu bu du moom ndax maanu ko maanu woon waaye loolu itam la rek pour bëgg a wax ni Omar ibn Abdul Aziz dafa tolloogun ci jamono yoo xam ni ni ko yonent bi waxe woon àgg nañ ca te kii bu doon doon mahdi yu li woote ak li mahdi woote bokkul dafa sos teg di wax yoo xam ne bokkul ci li alquran mahdi yu ma diine yoonu sallallahu alayhi wasallam ci lay bokk ñoom dañoo créé seen diine bopp créé seen alquran yi bopp lépp ñu def ko seen làkk bopp loolu kon ay du dëgg surtout téere bi nga xam ne andi nañ ko waaw téere boobu ñu andi alquran mooy almunazzala jële ko ci yonent ci jibril alayhi salatu wasalaam wàcce ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam nga xam ne sunu borom dafa xam ni ñun yàlla ñoo ko wàcce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñoo ko wàcce ba pare ñoo koy wattu ginnaaw dañu ko wàcce ba pare di ko wàcce wat sunu borom du bàyyi ñu koy seetaan tey fu ndóoli su fekkee ni man bëgg na maa yàq téere boobu wala yow nga yàq wala kan bëgg ko yàq sunu borom ci am mooy jël luy teg sunu kaw lu ñuy gàllankoor ba alxuraan du yàq moom mm. ndax sunu borom ne man maa koy wattu sama bopp ah moo koy aar boppam te alxuraan moomu mm. amul benn téere bu fi ñëwoon ci téere yi jiitu woon injil tawraat sabuur ak suxufu Muusaa ak suxufu Ibrahima téere yëpp benn bu ci nekk bi mu ñëwee ba fa ay ñooñam jógee am na luñ ca soppi am na luñ ca yokk am na luñ ca boo xam ne kara bi yonent bi sallallahu alayhi wa fii wuy ji sunu warom ba tey amul yokk te ba kara at lay tukki wenn arfu ci yokk wenn arfu ci wàññeeku mu mel nii seetaan gi moom moo cëpp parce que tey euh, bu fekkee ne ci wàllu yoon xëy na boo jëfandikoo tenib jàmbur euh, mën nañ la toppee usurpation de fonction tey ñu gis ay nit ñoo xam ne dañuy wuyoo ay yonent te dara du leen leen ci fekk est-ce gi tamit bariwul ci réewum Sénégal. maanaam Sénégal ci om ñoo doxut. ñi fi nekk euh, aada ji muy président de la République ak ko jàppale ñooñu tekkiwul dara xam nga fu mu toll nii Sénégal du ñu xam gëm-gëm gëm lu seer la arab yi dañoo ñëw ni aman ah, naa gëm nan mu leen déedéet gëmu leen xul lam tu'minu walakin xuulu asam naa bu leen di gëm nan nee leen rek dugg na ci islam loolu nag moo am Sénégal ay jullit daal ma bari def moom ñi koy woote ay jullit dan ay jullit dan mais nekk mu'min boo ko doon xool téeméer boo jël daanaka kenn wala ñaar ñoo ci nekk ay mu'min xam nga mu'min ak muslim bokkuñu muslim moom képp koo ashadu an laa ilaaha ashadu anna muhammadan rasulullah rek muslim nga ci diina ji la boole saytulaa rek saytulaa nangam saytulaa nangam mais mu'min moo jafe mooy iman billahi i'tiqaadu bil qalbi wa amalu bil jawaarih da koy fas sa ba pare di ko jëf say cër ñu gis ko loolu mooy ngëm yàlla loolu na moo amul bari de la République moo ci jiitu ak ñi koy jàppale ak ñeneen ak ndax yu mel nii fu doon ñoom da leen di gënal ndax bëgguñu àddina nekk benn benn benn bopp nii rawat ne Sénégal gi nekk benn bopp ndax xam na Sénégal Sëñ Tuubaa fi ne loolu ñoo xam nañ ko léegi nag tey dañuy bëgg yu bari yooyu di saaroo pour kenn koy di woote fenn loolu day gën a daaneel yenn ci ñi gañe woon diine ba teg ko ci yoon ko ci mel ne sunu waay Seexul Xadim loolu moo tax ñoom ñu mel noonu duñ ci wax dëgg-dëgg li ñu a wax. voilà am na aussi responsabilité parentale muy euh, waajur yi am nañ ci responsabilité bu rëy ndax euh, lu mu néew néew am na benn influence bu ñuy def ci ndaw ñi parce que am na ñoo xam ne topp nañ leen. Euh, ban rôle lañ ci war a jouer rôle bi ci waajur war a sune lii rek la alxuraan da koo xam bu yàgg yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara Ousseynou Ndiaye na nga fexe ba fegal sa bopp sawara Ousseynou a ah, kon baax na muy déedéet wa an wa ahlikum na nga fexe ba sa soxna bu mu taabi sawara fexeel ba say doom bu ñu taabi sawara nga ne nan laa koy defee mu ne nga teg ci yoonu siraatam saqim fi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu fi jaar yoonu sallallahu alayhi wa sallam kullu mawludin yuuladu ala fitra bépp nit bi ngay judd yaa ngi mel benn morsa bu weex tàll wala benn fooy wala benn birig bu weex tàll tal dara gàkkalu la mu ne waaye nag fa ab waaw ñaari waajuram yu xay xawidaanihi wa yu nasraanihi wa yu majisaanihi kenn ku nekk ci ñun bu juddoo rek say waajur ñoo lay def majuus ñoo lay def nasaraan ñoo lay def jullit léegi nag kon ñun nan xool suñu doom dañ leen war a def ñu nekk ay jullit wala dañ leen di bàyyi rek ñu nekk ay majuus wala ñu nekk leneen leneen ku ne amati responsabilité bu mag say doom soo ko deful ëllëg yàlla di dox sa ndigg kenn mënu ci dara voilà ngir mu gaaw léegi léegi nag lan mooy solution ba yu mel nii euh, bañ fee amati ndax dëkkub lislaam la ñu nekk. solution bi lii rek la yar ndaw ñi mag ñi fi nekk itam te ñi dee wooy ay lii yi diine nañu xam ni teguñu leen ci suñ kanam ngir ay oto yu rafet teguñu leen fi ngir ay kër rafet teguñu leen ngir puukarante àddina teguñu leen fi ngir ay xamanteeg nit yi àddina loolu taxu leen a jóg seen maam yi nekkuñu woon ci loolu seen maam dañ fee nekk na lislaam ñoom dañoo war a jóg xar seen tànk ci lislaam loolu lay alxuraan soxla waaye bu dee bokk mukk yàgg naa ko wax di nga yi ñoom ñi diina yi ñoo war a fexe ba adduna bi nekk adduna bu sell adduna bu baax adduna bu jub adduna boo xam ne day tegu ci siraatam mustaqim ñoom suñu ko bëgg rek mu nekk seexul xadim dafa wax ni lil Mustafa na way tumaa jaddidu waaw diine ji la wax sunnatu wal xaraa wa inni ahmadu daa ni diinu siwal islaam yi laa yuhmadu inda ilaahi bii nu jaddidu kon foofu la war a tànk waaye nag yii ma gis xëccoo kenn ku jëm nee ñee jëm nii ñi jëm nii loolu bu ko def diine ji dama sell xalifa yi diine yi laay njëkk a waxal ñoo war a jóg taxaw temm temm temm ñu diine ji gën a sàmmoo ñu diine ji gën a ñoŋe li leen seen maam bàyyi leen ñu téye ko bu baax a baax xëcc ndaw ñi orienté leen ci xamal leen mooy lislaam affaire du ay addiye ay daayira du nangam ak nangam nangam loolu ci gën a néew xamal ndaw ñi lislaam mooy dëkk seexul xadi foofu la nekkoon dafa wax ni wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi fi aw lay ëllëg suñ tubaab bu ndaje ma luy laay amuñu lay ci moom nañu yar ndaw ñi ci diina xamal leen yu bari yu ne gis ay fo rek la ak caaxaan nañu nambatal gone yi ci diina ñu xam lan mooy diina dëgg-dëgg diina nar gàcc suñu bopp loolu mooy wax ji ah. ah. waaw kon xam naa rek di jaajëfal baax a baax a baax ci xataay waxtu wi li nu bëgg na wax dëgg-dëgg mën ñu ko wax ndax euh, émission bi mayuñu ko waaye laa kuli xaalin daal ñu ngi leen di jaajëfal tey wax ni na ñu xam ni àddina dafa gàtt yii ñuy woote te nuru ko nañu ko ba caaxaan yeeg yu bon yu ñaaw yu xesaw yi xew ci àdd bi te dara rafetu ci nanu fexe ba danoo sa loolu muy niti addina yeeg niti diine yeeg ñëpp nanu fexe danoo sa loolu dara jubu ci dara baaxu ci te ëllëg amal xaa kenn ko ne yàlla de la laaj waqifuhum innahum mas'uluuna président yàlla de ko laaj ñun ñim yu fan nan la defee ak ñun loolu nag bu ñu ko xamut lu neex rek waaye moom yowmal xiyaam moom yàggatul insha allahu rabbi te kenn ku ne sa borom laaj dee sant baax a baax a baax dee jaajëfal di jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñooy personnel bi nekk ci 24 actu yi bàyyiwuñu kenn in uridu les sama tent wa ma tawfiq illa billah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ah, ñi ngi koy sant baax di ko gërëm tey moo nekkoon sunu gan ci li nga xam ne rek moom la ñu doon waxtaane muy ay ponk yoo xam ne dina soxal réew mi ndax yu mel nii bu xewee rek laal diine ji wala yu ko jege euh, du ñu toog rek di seetaan euh, donc dafay am solo bu baax ñu dalal borom xam yi ñoom itam ñu wax ci li nga xam ne euh, la ci lislaam wax ñi ngi koy sant baax di ko gërëm ci wuy gi nga xam ne si ne ko ci 24 actu sant baax tamit Mourou Diouf mu nekkoon ci caméra bi Cheikh Gueye ak mbay ci montage bi ñu ngi leen di jox daje incha allah beneen jotaay jërë ngeen jëf. Ah.